dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo ku amul li nga bëgg nag am la nga xam ne maanaam moo fa daal sës yéenekaay gi di réew mi ko quotidien ci xëlim ak Assane Samb dafa daal di dikk ci bor bi nga xamante ni moom mooy dette africaine boor boobu nga xam ne réewu Afrique yi dañoo bëgg nag ñu daal leen koy jéggal raxas ko ba mu seet wecc loolee nag Afrique jamono ji yenn ci ay réew mënuñu ko daal di am moo tax nag am na ak mbagar fegg goo xamante ni daal nañ leen koy jagleel ndax ñi nga xam ne ñooy waa FMI ak banque mondiale ñoom nag nangu na ñoo génne li nga xam ne mooy ay koppar jox ko yenn ci ay réew Afrique yi nga xam ne Covid 19 bi dalee na sonal waaye nag koppar yooyu nag maanaam ab abale la abale la boo xamante nag bu jàmp la ngir nag ñu man see lijjanti seeni mbir yéen kaay gii di Dakar Times mu ñu xamal ñu nag lu jëm ci wàllum dette boobu nag ngir nag ñu daal di koy raxas daal di koy effacé baal ko réewu Afrique yi ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron njiitu réewum France moom nag nee na daal du ci tàyyi benn yoona dossier bi sax dina ko jël nee na yóbbu ngir nag ñu mën a baal africains yi seen bor bi yéen a kaay gii de Les xëy nag dikk ci ceeb bi nga xamante ni maanaam ñoo ngi koy séddale askan wi ni ñu jëndee ceeb bi ak lu soxal wàllum transport bi ak marché yi ak njublang gi nga xamante ni nag maanaam ñoo ngi ko say nemmeeku ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ñoom nag na nañu yàq lu mel ni xeme ki nga xam ne mooy Mansour fay ak nag Diop si ndax ñoom transporteurs yi nee nañu nag dañoo waxoon Mansour Faye na ko ñun mën nañu laa yóbbul ceeb bi te du ngeen si fay dërëm loole nag Mansour Faye daal di kay lànk loole nag moo leen jaaxal yéen kay gii di la mooy ñu fekk fa góor a xuma moom nag nee na marché bi ci boppam bi ñu jox Diop si dañu ko war a dakkal ndax nag ay njublang ci boppam ak i caaxaan moo ca am te gis ngeen jóob si mii ci boppam maanaam prête noo la dafa am ay politiciens yoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw jóob si yéen kay gii di source a moom mu xëy di wax ne li am ba des daal mooy xel ci boppa daa dinay tey maanaam li nga xamante ni moom lañ jëndee ceeb bi ak ni ñu joxe Diop Sy marché bi nga xamante ni moo jëm ci wàllum yóbbu ceeb bi ci gox-goxaan yi journal bi nag nee na Mansour Faye ngir nag mu daal di noppalu bañ coow li bari dafa war a nag daal di fësal publier li nga xamante ni mooy avis d'attribution yi jëm ci wàllum marché yi ba pare nag montant bi nga xamante ni maanaam moo ci dugg ñu daal di kay publier bu ko defee jàmm na ñooy yéen kay gi de la turbine na moom kay bu ñu waxantee dëgg maanaam scandale bu mag a mag a mag jamono ji mooy xeeñ ci lu jëm ci ni nga xam ne moom lañ jëndee ceeb bi ak ni nga xam ne moom lañ jëlee marché bi jox ko jóob si Birahim Seck bu Forum Civil moom nag la mu xamle lu jëm ci wàllum guerre corruption maanaam ma ngi xeeñ ci mbir mi te nag njortu nañ lu ni mel yéen kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal ñu ceebu Mansour Faye bi kay maanaam nag coronavirus bi ci boppam daf koo daal dugg ceeb bi ci boppam yéen kaay gii di Sud Quotidien moom mu xëy di wax ne ceeb bi ni ñu ko jëndee que ni ñu koy séddalee ak caaxaan ak scandale daal ne say xeeña li nga xam ne nag moo am ba des mooy benn xaritu Macky Sall boo xam ne gañe na ñaari marché yéen kaay gii di xam ne lu jëm ci wàllum dem beeg dikk bi nee ñu nag lu toll ci cinquante camions maanaam pare woon nañ ngir jox ko nag Mansour Faye gratuitement waaye nag Mansour Faye daf koo daal di lànk Momar Souran moo ko xamle nee na nag ñoom seen bopp loolu fi mu ne moo leen jaaxala Guy Marius Sagna ni ki ñoom bëggoon nañoo amal ab janoo ak taskatu xabaar yi waaye nag dañu leen koo e tere ma ngi ci yéen kaay gii réew mi quotidien moom activiste nag la mu xamle nee na du ñu nangu benn yoon nag maanaam ñuy business ci li nga xam ne mooy woppi coronavirus ji te nag gi ni ñu leen gisee nii maanaam dafa am loo xamante ni ay lees waxul la yéen a kaay la témoin moom mu xëy dikk ci covid bi ak lu jëm ci couvre-feu bi daan nay tax nag accident yi wàññeeku bu baax a baax a baax ndax téeméer boo jël juróom-ñett fukk ya ci accident yi wàññeeku na ci Sénégal gi yépp bi ñu ko xaymaa fukk ak ñett nit maanaam ñoo faatu ci accident moto Jakarta yi nga xamante ni accident yi comme tulleeg màlle maanaam amul benn accident bu ci daal di am journal bi de Libération moom ak Rewmi Quotidien xëy dikk nag wax ci communautaire yi nga xam ne nee na cobbay ci Ndakaaru journal bi nee na ñaari cas yoo xamante ni gis gis nañ ko parcelle Assainies ak Mbaawa njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag jamono ji fan la nekk wala dafa gëmm ay bëtam ginnaaw nag bi mu indee ak jubbanti ci code du travail dafa mel ni nag direction bu SATREC ñoom seen yoon nekkul ci nag ci li Macky Sall wax ne bu ñu dàq kenn ci lu jëm ci mbirum Covid 19 bi ndax SATREC la nga xamante ni moom la ñu fa nemmeeku maanaam dàq gaa nga mel ni tulleeg male direction générale ba nag maanaam kan moo leen di protéger loolee la bi di waa Grand Place xëy di laaj yéen a kaay gi du l'Observateur mu ñu ñu lu jëm ci ndimbal yi nga xamante ni askan wi ñoo ngi koy dajale maanaam om d'affaires yi joxe nañu sénégalais lambda yi ñëpp joxe na ñu waaye nag ñi nga xamante ni kenn déggu leen ci joxe gi mooy ñi nga xam ne maanaam ñooy politiciens yi opposants yi kenn kenn kenn déggu leen ci mbir mi maanaam aw 15 dërëm génn wuñu ko yéen kaay gi di réew mi quotidien moomu xëy di ñu xamal naan ñu Sadio Mané en tout cas li am ba des Zinedine Zidane bëgg na ko lool ngir jële ko Liverpool yóbbu ko nag fi nga xam ne moom mooy Real Madrid yéen kaay gi di stade di dànkaafu Sadio Mané na en tout cas am na loo xamante ni daloon na benn naataangoom di Coutinho ndax Coutinho ba muy jógee Liverpool dem Barcelone jàppoon na ne bu demee daf koy toj waaye nag bu mu demee maanaam ci banc bi la ñu ko daal di tekk journal bi nag xëy di samp ab laaj na Kylian Mbappé mbaadu nag moo nar a remplacer Sadio Mané ci Liverpool yéen a kaay gi du sunu làmb xëy dikkal ñu ci Balla Gaye 2 ak Modou Lo ak Eumeu kan moo gën a xaraña journal bi nee na lu toll si ñaar fukk ak juróomi combat am na que ñaar fukk ak benn ci ay victoire quatre défaites Eumeu Sène ñaar fukki combat dix victoire sept défaites Modou fukk ak ñeent ci ay combat ñaar fukk ci ay victoire ñett ci ay defeta moo tax journal bi xëy nag daal di càmbar seeni jaar-jaara xëy samp ab laaj na ñetti mbër yi kan moo ci gën a nekk kàngam